leen balu àq di ñaan suñu barom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bàkkaar nangul ñu suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu sàmm ñu ñu suñuy kilifa di ko ñaan mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yokk ko wér te àggale ay yéeneem naalam te nu ànd ko ñuy dellusiwaat rek ci di fàttalente ci lenn ci xéewal yi nga xam ne suñu boroom subhanahu wa taala defal nanu ko te nu war koo xam yëg ko te sant ko ci ci anam gi nga xam ne ci lañ ko ci war a sante ab jullit dafa war di yëg xéewal ko suñ borom defal te bokk na ci xéewal yi yi mënu defal xéewalu dëkk ci pàkk bu sell bii di Tuuba xéewalu nekk dëkkandoog Cheikhul Xadim radiallahu taala anhu loolu du xéewal gu rëy koo xam ne ku ko suñ borom defal war nga koo yëg war koo bàyyi xel waaye war a sant ci xéewal ga niñ ci war a bokk na ci niñ war a sant ci xéewal googu nag mooy xam orma yi dëkk bi waaye yëg ko waaye sàmm ko moo tax lu bëgg a fàttalente rek lenn ci orma ji nga xam ne dëkk bi am na ko ak nuñ ko war a bàyyee xel tuubaa suñu borom subhanahu wa taala da tànnal cheikhul qadim radiallahu anhu bi ko ko tànnalee it mu jox ko ci ay ngëneel yoo xam ne xëy na nit lott na ci xam wàccuwaay ak màggaayu dëkk bi ak sellaayu pàkk bi waaye nag am na yu ñu mën a teg bët yuñ mën a xool yoo xam ne war naa tax ñu sàmm ormay dëkk bi yooyu bari la waaye dañ ci tudd ñett yoo xam ne bu ci ne war naa tax ku dëkk ci dëkk bi wala nga di fi ñëw nga yëg ormay dëkk bi te sàmm ko ñett yooyu ba ci njëkk mooy dëkk bi li taxoon boroom sanc ko ak ni mu ko soppewoon radiallahu anhu sëriñ Tuubaa li taxoon mu sanc barab bii nga xam ne da ko waxal boppam te muy jaamu yàlla liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi wa dundal sunnaam loolee nga xam ne junj na ko ci tàmbali matlabul fawzayni di ci sant suñ boroom mi nga xam ne moo ko tàqaleeg ay gàllankoor indi ko ci barab boo xam ne dafay dundal sunna di fa dundal jaamu yàlla waaye di fa dundal xam-xam waaye barab boo xam ne dafay barab jëf lu baax luy taxa texe ca tàmbali Matlabul Fawzayni ma ngay sant yàlla di wax ne alhamdulillahi ka alhamdulillahi alkarimi dilminan ala ishtigali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani wa qaadani ilayhi bittaxalli min bacdi ma hazzaba bittaxalli wa jarrani fihi ila alculumi walfawzi bilcamali bilmaclum kon sëriñ bi sanc gi mu ko sanc te yàlla rekk tax ak dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi bokk na ci li tax mu soppoon ko lool ba Cheikh Mahmoud Bachir mi ngi wax ci minan sëriñ bi daana wax ne li tax mu bëgg Tuuba ak Daaru Salaam mbëggeel gu raw gu mën a bëgg beneen pàkk la ko waral mooy dëggu gi nga xam ne ko pas-pas bi ko tax mu sanc ko dëggu pas-pas boobu moo tax mu sopp ko lool mu sopp leen ñaari pàkk yooyu ndax nee na ñëw fi ngir dabu barab bu ay maam nekkoon wala dabu foo xam ne dafa neex a baye walla dabu foo xam ne dafa neex a sàmme waaye ngir jaamu yàlla képp wéetal ko ci ndigalam ak ci ak tànnam cheikh mahmad bachir di wax ne sëñ bi daa wax ne inna sababa mahabbati li tuuba wa daari salaam akthara min gayrihima yakmunu fi sidqi l iradati allati dafaani ila binaihima ma rajactu fihima li aslin saabiqin wala lirtiyaadi mazracin wala marcan wa innama hiya li cibaadati illahi waxdahu an iznin minhu taala wa ixtiyaar mu bokk ci liy firndeel cofeel googu ak bëgg googu nga xam ne sëriñ bi bëggoon na ko Touba buñ seetloo bi mu nekkee ci tukki bi ni mu daan binde di ñaan suñu borom subhanahu wa mu delloosi ko ci dëkk bi bokk na ca <clears throat> ba muy wax ne ilahi ila tuubaaya qudni wa salliman wa jud bimtinaanin thamma wal tuumini turba li mu waxee ilaa tuubaayi rek wéer gi mu ko wéer ci boppam loolu day wane ak mbëggeel ak jofeel mooy sama dëkk bee di Tuuba kon loolu ku xam loolu ku yëg loolu war a bëgg dëkk bi waaye war bëgg war ormaal dëkk bi waaye war koo xam orma ji war koo yëg ñaareel bi bu ñu seetloo sëriñ bi ni mu ñaane ci dëkk bi ak limu ñaanal ku dëkk ci dëkk bi loolu war naa tax ku ne fonk ndax boo xoolee ni mu ñaane lépp luy xéewal suñu boroom indil ko ko ñoddil ko ko ci dëkk bi waaye lim ni mu ñaane lépp luy balaa ak lor ak musiba suñu boroom soril ko dëkk bi di wax ne wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha wajcal xarimana xariman amina wa kun bi xifzihi kafilan daamina wajbulaha alxayra min aljihaati assitti wakfi an il afaati yooyu yëpp nga xam ne ñaan suñ borom aaral ko ormay dëkk bi aaral ko ormaam sàmm ko waaye ñoddil ko wépp yiw fu mu mën a nekk waaye musal ko ci yëpp gàkk-gàkk ak lor waaye ñetteel bi mooy Tuubaa dafa doon dëkk boo xam ne suñu boroom da ko def ci xoli murit yi nga xam ne bépp murit bu dëggal doo fi bëgg a dégg lenn wala nga gis fi lenn lu yellut lu méngoowut ak dëkk bi waaye noonu la ko suñu boroom defe ci xoli jullit yi nga xam ne ñu dëggal lañ ndax jullit yi xam nañ ne Tuubaa tata tata la ci lislaam barab la boo xam ne dañ fi sàmme valeur lislaam ak njàngalem lislaam moo tax ku dib jullit bu dëggal da ngay wékk sa xol ci Tuubaa soo sañoon yiw rekk nga fi dégg soo sañoon lu baax rekk nga fiy dégg kenn du fi dégg lu yelloowut ak dëkk bi kenn du fi dégg lu méngoot ak dëkk bi sëriñ bi ci boppam ci ay ñaanam gis nañ muy tudd suñ boroom musal ko ci loo xam ne yelloowut ci dëkk bi yooye muy ñaan ñëpp dañoo war a yëg ne kon lu yelluwut la lu jaaduwut la loo xam ne kenn ku nekk war ngaa bàyyi xel ci moytu ko bokk na ca lépp loo xam ne day xotti ormay diine ak fetteerlu ci li lislaam bëgg li lislaam di digleeg li muy tere loole sëriñ bi ñaan na yàlla musal ko ci dëkk bi dëkk bi nekk dëkk boo xam ne jaan àjjana lay doon ci képp ku sóobu wut ngërëmul yàlla waaye pakk lay doon ci képp koo xam ne dangay ngay xotti ormay diine fetteerlu ci ndigali yàlla yi wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi kon pakk la buy aar képp ku sóobu ku namm ngërëmul suñ boroom waaye pakk la buy fekk képp koo xam ne xotti ormay diine day fetteerlu waaye sëriñ bi ñaanit suñ boroom musal dëkk bi ci topp sa bànneex ndax topp bànneex bari na lu dugg ci ay lor ca moo ko ci dugal ak nekk ci loo xam ne amul njariñ sëriñ bi ku ko xam dangay xam ne ku mu yar kuy topp ndigalam ak i tereem doo dugg ci lenn lu amul njariñ loo dugg rek lu lay amal njaañ sa tey la ak sa ëllëg moo tax mu doon ñaan yàlla fegal ñu bànneex ak topp bànneex wal takfinal hawa wama la yaani wa bika da ban arnina yaa moo nii waaye bokk na ci li nga xam ne lu yelluwut la ci sëriñ bi ñaan suñ boroom mu musal ci dëkk bi mooy tooñ ak jalgati waj'alhu maskana xurujin min zulam linnuuri wakfi anhu kulla man zalam kon tooñ ci doomu aadama yi tooñ suñu boroom xam tooñ ci wax la wala ci jëf loolu lépp kon yu mata moytu la yoo xam ne méngoowut ak barab bi ñu war a sàmm ormay barab bi ci soriko allahu akbar

محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد السلام xam ne <coughs> euh, sëriñ bi ñaan na ko ci dëkk bi nga xam ne pàggu téef la pàggu la loo xam ne suñu boroom <coughs> defal na ko ko waaye ni nga xam ne noonu la suñu boroom tëralee àdduna nga xam ne <coughs> lu ne da koy jaarale ci sabab day jaarale ci ñu ñu ñu ñu koy ñu koy tëral ci sabab moo tax mboolem njabootu sëriñ bi ko fi wuutu ak taalibeem yi taxaw seen kem kàttan ci li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi muy orma ji loole ñu sàmmoonteeg moom ci anam yépp moo tax Cheikh Mahul Muntaqa xafizahu llahu taala wa ayadahu wa nasara mu bokk ci li ko gën a yitteel mooy ñu warmaal dëkk bi wormaal dëkk giñ dëkk dëkkaaleek Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wormaal sëriñ bi di ko bàyyi xel ci lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax bépp yëngutu bu ñuy yëngu bu ñu seetloo kàddu yëm njëkk a yëkkati bi ko suñ boroom tegee ci bopp yoon wi jagleel na ci waa tuuba bataaxel ni mu waxee njaboot gi waxe koog taalibe yi waxe koog jullit yëpp noonu la waxeek ñi dëkk Tuuba beral leen ay kàddu ca lay waxe ne wa ama risalatu thaalisatu fa muwajjahatun ila ahli madinati Tuuba almahruusa wa man yazurunaha min almuridin nga xam ne da ko jëmale ci ñi dëkk Tuuba ak ñi fi ñëw lam leen ca dénk mooy ñu sàmmoonteeg ormay dëkk bi taqoog teggin ak doxalin wi nga xam ne moo méngoog moom ni nga xamee ne kilifa yi jiitu woon noonu lañ ko doon feddalee mu wax ca ne maa ngi fàttali ñépp ñu moytu lépp lu yellut ci dëkk dëkk sëriñ bi radiallahu anhu nanu xër ci moytu lépp luy xotti ormaam waaye nañ fexe ba sellaayu dëkk bi ñu bañ a def lenn loo xam ne lu koy tilimal la lu koy gàkkal la nañ moytu lépp loo xam ne xeeti pola xeeti caaxaan la xeeti puukaréew la ak xuus ci mbirum àdduna ak di ko xëccoo loole ca kàddu yam njëkk a yi jëmale ko ci njaboot geek taalibe yeeg ñëpp waxaale na ca loole mu ñor ko lool loole it kuy déglu ay kàddoom saa buy soññee dana ko bàyyiloo xel nit ñi ndax mooy suñu njariñ mooy njariñul réew mi mu ñu sàmm ormay dëkk bi yitte jooje mu am ci dëkk bi ñoŋ ak ñu sàmm ormaam yitte jooje rek mu ci ci la kàddu yi mu mujj yëkkati di dugg muy jotaay bi nga xam ne seqoon na ko njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall radiallahu anhuma ca mu fàttali ca ni ñu war a sababloo ci aar dëkk bi ndax suñu boroom moo bind àdduna sunnaal ci sabablu li sëriñ bi fàggu fàggul na ko suñu boroom garantil na ko ko waaye nun it ñoo war a sabab lu loolee jaar ca tànk ya nga xam ne moo nu koy may mu soññee ci am ndigal yu mu joxe ci Matlabul Fawzayni xasida googu nga xam ne tata la kaaraange la lam ca digle waaye waxit lu jëm ci mbirum yëngatu yi politique ci dëkk bi mu doon kàddu yu leer yoo xam ne da ko tënk ci ñu bañ lépp loo xam ne yëngatu yu la yoo xam ne làmboo na mbir yoo xam ne méngut ak dëkk bi méngawut ak jik makaarimul axlaaq moo xam ay wax la moo xam ay jëf la moo xam ay coow la moo xam ay <coughs> ay yàq la lépp loo xam ne lu ñaaw la luy waral ak noonoo diggante ay mbokk yoo xam ne ñoo bokk pas-pas wala luy indi ak noonoo ci ñoo xam ne ñoo bokk ak mbokk loolu yëpp danañ koy gis ci yëngutu yu politique yi nga xam ne buñ demee ba jub ay élection di def ay campagne dañ ko cay gis ci yeneen dëkk waaye Tuubaa nag mu bëgg ñu ñoŋal ci lépp loo xam ne yëngatu la bu mel noonu loola wax ju leer joo xam ne ku ne war na koo dégg war koo jàpp muy lépp loo xam ne dina tax yëngatu yooyu nga xam ne méngoowut ak dëkk bi du fi ame loole la ca war lépp ñu def ko waaye nam ko waxe it bàyyiloo ci xel lépp lu ñuy def dañ koy def ci jàmm def ko ci dal def ko ci yoon waaye loole na nga xam ne sëriñ bi wax na ko muy kàddu yu am solo mu mel ne luñ lu mat a ràññale la muy yëngatu yu politique yi nga xam ne campagne la ak nag bis bi nga xam ne ci lañuy ñuy war a tànn nit ñi war a dem tànni ci ab yar ak i teggin delluwaat seeni kër nga xam ne bis boobee yoon sax da caa tere ku ca campagne loolee nga xam ne mooy bokk ci ay wote tànn loole bokkut ak campagne ak yàq yeek manifestation yi nga xam ne bokkut ak dara méngoowut ak dëkk bi te loole wax ju leer la mu mel ne nag ñi nga xam ne euh, wàccuwaay bi nga xam ne tuubaa am na ko ci tolluwaayu réew mi nga xam tey ginnaaw bu ndakaaru wooyee ñi fi woote ñu ëpp am na ñoo xam ne wàccuwaay boobu Touba am day mel ne du leen gënal ndax koo xam ne lislaam ñoru la wàccuwaay boobu dalay xatal ñu bëgg caa jaare bëgg a wax ne sëriñ bi day tere ku wate Tuuba loolu nag mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax Tuuba ak bokkam ci lii di ay wote tànn ñi ñu war a tànn ku ne xam ne ne njariñul réew mi la ndax dëkk la boo xam ne kuy wut réew mi walla ngay bokk ci ak genn pal danga ko bàyyi xel ca ba tax doo dugal ca say la nga nar a def loo xam ne luy juyoog diine la ndax danga xam ne lii kat bu ci waa Touba àndut man li ma bëgg duma ko am kon moo tax danga nga sàmmoonteeg ñi dëkk Touba ca la ngay tëral ak la ngay nas bëgg a doxale noona kon wàccuwaay boobu nga xam ne Touba am na ko ci bari lool ñoo xam ne ñoo fi nekk loolu lu suñ borom defal Touba la mu nekk wàccuwaay boo xam ne bu mata sàmm la boo xam ne njariñ la ci réew mi man nga ne njariñ lépp loo xam ne mu ngi dox ci réew mi Touba moo cay royukaay ba te bu ñu seetloo ci at yu mujj yi ñiy seetlu gis nañ ne bis boobu nga xam ne ci lañuy ñuy def wote bi euh, Touba bokk na ci dëkk yi gën a mucc ci ay coow ak i lu jaaduwut ñoo fi ëpp ab yar akuk dal ci dem def la ñuy def delluwaat buñ ko màndexeek yeneen dëkk yu mag yi tol ne moom loolee nag kon ñu bañ a jaxase li nga xam ne wax ju leer la ju sëriñ bi wax ci ñu sàmmonteeg dëkk bi ci lépp loo xam ne yëngu-yëngu la yu jaaduwut ak nag bu tànn jotee ñu war a dem tànn ca tànn gu sell gu ànd dal akub ak i teggiin yi nga xam ne moom la dëkk bi làmbool loolu nag mbir la yoo xam ne ndax sëriñ bi dafa bëgg ñëpp jariñu kenn bañ a loru kon ay ndigalam buñ ko déggee day jariñ réew mi di jariñ dëkk bi doon yoon yoo xam ne buñ ca doxee jàmm rek la réew mi am ndax moom ñëpp la bëggal jàmm ci ay doom saa bu jógee buñ ko xoolee bu baax dañuy gis mu joxance yoon yoo xam ne buñ ko toppee jàmm rek la ñuy am kon nag nu war a bàyyi xel bu baax kàddu yi li sëriñ bi bëgg bëggal nu ko bëggal ko réew mi te ñu wormaal dëkk bi wormaal worma joo xam ne dëkk bi laaj na ko nekk gi fi sëriñ tubaa nekk laaj na ko kon loolu yàlla nañ ci yàlla defal dégg ak topp ñaanal sëriñ bi yàlla yàggal ko fi lool ci suñu kanam defal ñu jàmm ak xéewal gu sax dàkk defal ko Sénégal gépp waaye defal ko réew julli yëpp def ko ci àdduna gépp yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين لسنته عند ذهاب عند ذهاب الدين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 اعتقادا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم فاستعدوا للموت فقد أغلكم وقد قال صلى الله عليه وسلم akfiru min dikri haadimi lladaati xataa yanqatia rukunukum ilayha alaa wa innakum fi yowmi amalin laa xisaaba fiih alaa wa innakum tuusikuuna fi xisaabi fi yowmi xisaabin laa amala fiih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 الحمد لله غافر الذنب ساتر العيب قابل التوب شديد العقاب فاته أبواب الإجابة لمن دعا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فيا سعد من سبقت له الحسنى ولطاعة الله سعى نشهد أنه الله الذي رفع بخاتم الأنبياء من الخير كل باب صلى الله وسلم عليه وعلى ما له من الآل والأصحاب أما بعد فيا عباد الله من أراد أن يقرأ في مناهل الصفا فليتق الله وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى فقد أمرنا الله بذلك لننال أجرا عظيما فاعمروا بذلك هذا الشهر الجليل وبنوافل الطاعة وبما أمكن من الإحسان بقدر الاستطاعة قال عليه الصلاة والسلام الجنة لكل تائب walraxmatu li kulli waaqifin waltawbatu ila llah hiya miftaaxu abwaabi raxamaat walinaabatu ila llahi subhaanahu wa taala hiya asaasu alcibaadaat walqurbaat لم تزل منهلا كريما يتواردها الأصفياء وشرابا طهورا من شراب العارفين بالله والأتقياء وهم يتضرعون إلى الله بالإنابة والاستغفار ويمدون إليه أكف التذلل والانكسار تائبين له خاضعين كما قال تعالى ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 ñoo ngi siyaare Seydul Muntaqa ak mboolem njaboot gi ci ginnaawam te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ñaanal mbooloo mi topp ci ginnaawam ba ñu dor ci ay ndigalam buñ ko defee ñëpp li bëgg danañu ko am tey ñaan lépp lu mu yéene ci lislaam bi ak jullit yi ak réew mi yàlla defal ko ko te dana ko def ndax sëriñ bi nee ma xaw xawta xasta durri lii bil muntaqa loolu kon ñëpp a ngi ci biir kon ñoo ngi sant yàlla mu ni diggal ñu topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax na bu ngeen ko toppee da ngeen am taraa ngay ël tey ak ëllëg wax na ci làmmiñ yonent bi nenu ñi nga xam ne ñoo topp ñooy topp sunna ci waxtu dem dayo gi jamono dem dayo def ni loolu fulal seeni yool def ni leen fay seeni jëf moo ngi seeree ne lislaam yàlla ko wàcce jaarale ko ci yonent bi yabal ko mu dikk leeralal nu ko te sant noonu di ko jëfe hmm. ginnaaw loolu bokki taalibe bokki jullit yi noo ngi dénk suñ bopp di leen dénk lañu jëkk ña dénkoon seen ñooñ te yàlla wax ko ci alquran wa laqad wassayna alladina utul kitaab min qablikum wa iyaakum an ittaqullah ragal yàlla googi noo koy dénkaane ragal yàlla nag waxin la ci topp lépp lu yàlla digle te wattandiku lépp lu mu tere lépp lu yàlla digle nga def ko te bu ci bàyyi dara lim bu ko jege fenn ci sa pas-pas ak say wax ak sa jëf ci biir ak biti nañu xam ne àdduna du karuk saxuwaay dañ fi romb rek kon nañ waajal ëllëg ndax ëllëg soriwut yonent bi sallallahu wax na ne na ngeen baril fàttaliku ëllëg nga xam ndax ngeen bañ di jàng jëm ci jëm ci tey ndax tey bisub jëf la ëllëg bisu fay la tulluwaayu def moo xam aw yuu walla leneen danga ko fa fekk ci ëllëgee fa borom kon nag bu nu àdduna wor bu nu saytaane wor ndax yàlla lam dil lam dële tanaan innamaa tuu'aduuna la aatin wa maa antum mujrimuun te mënunoo raw yàlla fenn te li mu danaan li ñuy tënk ci xutbam ñaareel bi moo di ñoo ngi sant yàlla muy jéggale bàkkaar yi di suturaal ayib yi di nangu tuub yi di ubbi bunt yërmande yi di seere ne yàlla mooy yónni yonent bi def ko muy xaatimul anbiyaa te it caabi yépp yiw la sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñun mbokki jullit yi bokki taalibe yi képp koo xam ne bëgg nga fa ñu baax ña nekk ña ne fa di dund ci leer bi yàlla na nga ragal yàlla na nga baril na nga baril salaatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax moo nu ko digal ngir ñu am yool yu mag yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla ko wax nañ dundal weer wu mag wii ci yiwuy topp yàlla ak lépp lu jàppandi ci aw yiw ñu ci kàttan ñu di ko def yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne àjjana ubbil naa ko bépp tuubkat yërmande yi buntu ba tuub jëm ci yàlla nag mooy caabi ji yërmande ji nga xam ne ci la ab jaam di jaar ci àjjana àjjana mooy yërmante la dellu ci yàlla subhaanahu wa taala it mooy laltaayi jaamu yàlla jaami yàlla yëpp jaamu yi yàlla yëpp yi ñu di ko def ak jegeñ jegeñ lu gu ñu jegeñ lu yàlla dellu ci yàlla moo nu koy may te loolu musta dañ di yoon wi nga xam ne gaa yu baax yi ca la ñuy jaar di dem ci sun boroom di dund ci ay leeram di ca naan aarifuuna billaahi yi ak war way ragal yàlla yi ci loolu yi lañu nekk te ñoom dañuy toroxlu jëm ci tuub ak jéggalu di tàllal seeni loxo ak jëme ci yàlla di di tuub sun borom wax na wax na ne wa yadduunana raxaban wa ba wa kaanu lana xaashin rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim yàlla yàlla nag nu nangul yow mi aji dégg ji tey aji xam ji na nu jéggal yaay jéggalekat bu mag bi na nga yërëm yaay aji yërëmi ji loolu lañ tënkoon ci ñaari xutba yi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin amin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 ربنا لك الله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 الثلثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف افتتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله الله